dal leen ak jàmm mbokk internet du net bi TV Sénégal gannaaw ba Ismaïla Madior Fall affecté Ngagne Demba Touré foofu sa diwaañu Matam moom Ngagne Demba Touré nag mujj naa dem rek sa affectation ba sa diwaañu Matam moom nag mbooloo mu bëri bari ñoo ko fi rek daal di tertu di fësal seen mbégte ak seen kontaante si dem ba ture ñëw gu mu war a ñëw foofu di fa liggéeyee ñoom daal loolu fierté lañ ko def ba tax nag mbooloo mu bëri bëri daal di génn rek daal di ngañ dem Demba Touré boole si nag di yooxu turam moom nag gannaaw bañ ko affecté ñu bëri si patriote yi doon nañ xam ne ne Ngagne Demba bu demee foofu sa maatam mën na convaincre foofu ay nit bañ gëstu procès bu Pastef Ousmane Sonko ñoom nag ñu jàpp ne Ngagne dem Touré yóbbu guñ ko yóbbu foofu mën naa tax parti Pastef gën a am doole foofee si diwaanu Matam ba tax nag ñu jàpp ne affectation bi mën na ibbi yeneen buntu si parti Pastef mbokk internet du Net Bi TV dina wéy di leen toppandal xibaar fii si Net Bi TV Sénégal